في جسد يا أخي موكل هرل لك موديا الناس كالمرل yee dana jaari fi àqam mm. ci yéen àq mm. ñoom yéen téyi ko laare leen mm. bépp gaar gaar boo xam ne layta mu addi yéen duma aji biji ni naqati jiwaan yi kalmare ni ko hopp sa ngeen jàngoo rek xay mun tuuti so hopp soxam tu utuñu sexul da ko dadaw borom loolu yu mel nii yu mel noonu te mooy doom melu doomu aadama yi nga xam ne da wàññi seen dara yu kaw yi yooyu yëpp jaaru na ci ñoom ni ki lekk ak naan ak nelaw jaay ak jënd ak denc jabar ak li mel noonu yëpp mm-hmm. waaye nag lu ci ne nag mm-hmm. ca dayoo ba nga xam ne du wàññi seen daraje kaw yi nag lay mm-hmm. la la nga xam ne meelu doomu aadama la nag xam ne dafay wàññi seen daraje kaw yi loolu moom duñ ci tàmbali dara yéen yi la ñuy def waaye lañ ci arrivé itam fañ caa yem daa ko julli wàññi seen daraje yi nag yéen dana xam ci seen àq ku laara din yëpp melo woo xam ne lay sa mooy den du mu aji biji li naqasin jëm ci wàññi xel mel ni ko laa yakunu saadiqan laa yaksibu illaa fi tadxiim daal la waxoon ne yajibu lirrusul ak asidqu amaanatun tablixuhum yett yooyu da waxoon da war ci ab yonent ak dëggal ak kóolere ak jotal lu laay lay nag comme ni mu ñu waxoon loolu ñu ko bu ñu nekk doon saa yoo xam ne dafay dëggal lazim war law bu tàmbalee ñaari daaneel ba fa am la la la la fekk fekk li baat bu tàmbalee laam mooy lelisin waaw law boo boo gisee law rek boo balaa nga balaa wax jënd daanu rek ñaari da nga gis la ca kanam hmm. law kuntum fii buruujikum buyuutikum labarral laziina kutiba alayhimul qawlu illaa hum laajin law bu tàmbalee da da koy da koy tontu am ñaari la dafay far daa am am la. dina <clears throat> koy ñàkk nag bëriwut boo demee ci saa yi tamit ci Ibnu Maalik wala nuutul xiyaar la bokk sarax naa wala nuutul xiyaar de na ko de xam naa wala nuutul xiyaar la bokk sarax naa ni ko wala hmm, law saadu ko maa faalu daa am daa góor gi man ci jàngal Alxuraan ji lañu ko daan jàngal moom dama boo gisee law rek da nga gis maa ca kanam wala nga gis fa laam maa ngi ci law ko maa faalu sama jigéen jaa faam xamal ma lawta kii xamul ma waaye law bu tàmbalee da nga ji ma wala nga ji la <coughs> ndax buy li ñoo saxal laa koy tàmbal buy li ñoo dàq ma ma ma ma ma fay nekk lawantawal lawantawal lawantawal fa naa lanta fa xidam lamaatun la xalqu doo soon xatam <coughs> di nga ko xamul xamul laa moom loolu la ñu yokkoon saari xan la la ñu yokkoon bu ñu nekk doon saadaxan dafay dëggal la la sima kon war ayi siwa ba ferat ila al ila son borom fii dasi xam ci seen dëggal te loolu jàpp mu jàngal ci iran bajori mu ne loolu mu xaal lu jomb la il mu ci saatim ka xawli yi wabar sadaqaat na du fi ku xabar il mu ci saatim seen kawte bi ka xawli ni ki waxe son borom la seen kawte bi mu ngi mel waxe son borom wabarrat mi moom dëggu na waajaram mooy sadaqa dëgg na xaaral xam jaam bi fii kulli xabarin ci bépp solo maanaam seen kawte yi mu ngi mel ni sama borom moo ne sadaqa xaaral xam bi moo tax ma ne moom ci saatam seen kawte bi ka xawle ni ko waxee sama borom la ba baratu bi moom dëgg na sadaqa dëgg na xaaral xam bi da jaam fii kulli xabarin ci bépp solo loolu itam taw li aw xaanu woo itam ay yox la man ma ne taatam la moom waxoon naa ne tamit xoom mm-hmm. moo wax ne war na ci ñoom jotal war na ci ñoom itam kóllëre mm-hmm. lamin tawa ba daa xooman mm-hmm. ab tan yoo xam jotal aw xaana wala ñu hurujoon la ay yoxale kon la si ma kon war ay yoxale bu soppee fat almane yi def li ñuy tere tanaatu muy topp loom ñu ne leen wala yi si anooma rek bi mu xaarami ama kuréel ci daan ba jëri noo fekkoon ne dañoo dañoo dañoo nëbb wala ñuy def huruj te mooy ñuy def lu xaaraam wala ñu sib kon ah ndax ñun li ñu sant mooy ñu topp ci seen kaw mm. kuñ la ne toppal ci kaw am luñ la xaayee rek xamal du ko def mm. Mm.